également très rapidement ci li nga xamante moo di actualité yi ñu dooree ko soppula ak li nga xamante moo di Walf Quotidien daanaka sax tey journaux yu bëri ah loolu la ñu mhm. xëyee di li nga xamante moo am ni ki démb fële ca Mali alors Walf Quotidien def nañ ci seen une coup de force à Bamako Aziz en garde à vue euh, gros nuage sur l'Afrique de l'Ouest mais def nañ lu am solo ci sa suuf quelle leçon pour le Sénégal alors <laughs> may rappeler rek ñi ki démb li nga xamante ni xew na. fale ca ca ca ca Mali ñu woowee li nga xamante ne peut-être mooy tentative de coup d'état. Mhm. ba ki nga xamante mooy IBK Ibrahim Boubacar Keïta président bu Mali daal di démissionné ci euh, ci guddi gis def déclaration am ca seen euh, nationale bi. et euh, c'est euh, c'est vrai mais entre entre démissionner et, et se faire démissionner il y a mmh. naturellement une différence mmh. moi je dirais plutôt que euh, euh, euh Boubacar euh, comment il s'appelle déjà Ibrahim Boubacar, Ibrahim Boubacar Keïta s'est fait démissionner justement par cette force militaire justement ou ces forces justement euh, militaire du, du du Mali tout simplement parce que dafa am benn sinistrose bu amoon dans ce pays depuis un certain nombre de temps euh, faisant que ni les Maliens euh, et donc à leur tête euh, le euh, l'imam Dicko kontaanuñu woon naturellement si comportement donc Boubacar Ibrahim Boubacar Keïta par rapport à la gestion du pays maintenant moi la question que je me suis posée pendant que j'étais dans ma voiture moom mooy après un un Camara l'échec d'un Camara en Guinée Euh, euh, euh, est-ce que mën nañu espérer un un succès le succès d'un autre Camara justement au Mali pour la Guinée je parle de Dadis Camara. Mm. qui avait fait un coup d'État et que finalement. gis nañ nu mu nu mu nu mu mujjee les intentions étaient bonnes au départ mais après gis nañu finalement ni mu ni mu ni mu ni mu mujjee. moom ci boppam ñu jéem ko coup d'état ba euh, tentative pour rey ko et finalement euh, euh, donc après il s'est fait exfiltrer au Burkina Faso donc gis nga ni en Afrique il y a beaucoup de de problèmes il y a beaucoup de problèmes de démocratie il y a beaucoup de problèmes de gestion du pouvoir Obama qui disait moom Obama l'ancien président des des États-Unis d'Amérique mi ngi daan wax ni les Euh, les Africains n'ont pas besoin euh, d'hommes forts euh, ci seeni pouvoir mais li ñu soxla moom mooy ay institutions yu fortes. Mhm. te institutions yu yooyu je pense que ni man dama ko mës a di demander nit warul am doole parce que yàlla kese mooy am doole. waaye ay institution nit bu ñu la dénkee ay institution wala ay kuréel kuréel yooyu dafa war a am doole doole ci kaw population bi mais doole ci kaw yow mi nga xam ne yow lañ ko dénk. donc euh, mais en général ce n'est pas du tout le cas euh, doole bi c'est toujours euh, ci ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk nguur yooyu ñoom ñoo koy ñoom la koy jox bañ ko jox donc donc institution yi alors que en principe il est dit euh, euh, communément que les hommes passent mais les institutions demeurent ou restent donc je crois que ni lii c'est un exemple pour le Sénégal mais pour l'Afrique en général mais surtout l'Afrique francophone l'Afrique de l'Ouest je pense à la CEDEAO bi nga xam ne ñoom kenn xamul ban genre je suis un peu amer en Fatou parce que euh, je me dis que ni li li li en mhm. euh, parce que immédiatement maa ngi xalaat euh, euh, Ibrahim Boubacar Keïta. bi mhm. toog noonu di di wax. Euh, mu naan damay démissionner parce que euh, bëgguma euh, mu am une effusion de sang dans le pays mu ne mu ne damay démissionner parce que dama bëgg Mali mu ne damay démissionner parce que parce que bëgguma coow bëgguma benn doomu malien mu mu mu mu mu mu mu laaxu mu gaañu. moi je dis mais quelle mauvaise foi ce monsieur ah bugguloo benn euh, doomu malien de bugguloo benn ñaata malien ñooy feebar par jour ñaata malien ñooy nekk ci ay dispo y a 19 millions presque 20 millions de maliens ñaata ñoo sonn yow quand je vois j'imagine immédiatement et tout de suite doomam bi nga xam ne day nekk ci ay bateau de plaisance avec ses copines avec de l'argent xam nga di ko yàq dans un pays boo xam ne moom bu bàyyam nekk loon président du ko mës a def yaa ngi dégg avec des filles étrangères yoo xam ne bitim réew la leen di jëlee dugg leen ci ay bateaux de plaisance ñëw taxaw au large justement de l'Atlantique di def lu ko neex avec justement euh, xaalisu réew mi parce que xaalis boobu bàyyam moo ko téye Ibrahima Boubacar Keïta bi nga xam ne dégg moom dafa am ku ko fi teg te ki ko fi teg du kenn ku dul la France encore une fois le Mali qui fait pratiquement un million deux cent quarante mille kilomètres carrés le Mali fait deux fois la France Mali ëpp France ñaari yoon le Mali euh, euh, mooy dëkk bi nga xam ne euh, foofu la Modibo Keïta jóge woon avec son histoire le Mali bi nga xam ne bu ñuy wax Soundiata Keïta ci histoire ci mœurs ak éthique Mali foofu la jógee le Mali bi nga xam ne foofu la Salif kayta bi nga xam ne way na lu nekk ci àdduna foofu la jógee donc le Mali un grand pays d'histoire et de culture ce Mali-là est en train d'être pillé ce Mali est en train d'être saccagé depuis ci Moussa Traoré avec son coup d'État sur Modibo Keïta euh, après Moussa Traoré effectivement il a eu ATT qui est arrivé il a eu beaucoup a essayé de réguler un tout petit et finalement gis nga ñeneen ñëwaat nañu ATT qui est arrivé Amadou Toumani Touré mais qui était un petit peu trop mou pour gérer continuer assumer la continuité par rapport à à à à l'œuvre de Alpha Oumar Konaré ça n'a pas marché donc ces gens-là il faudrait moi je pense que ni question de nit la nit ñi il faut que moom ay nit ñoo xam ne dañu motiver en Afrique nit ñoo xam ne dañu jóg pour liggéeyal Afrique nit ñoo xam ne dañu jóg parce que dañu baax tout simplement il faut que ñu am chance yooyu que ce soit pour le Sénégal pour le Mali et pour les les autres pays imaginez bien la CEDEAO qui va se retrouver immédiatement illico presso demain avec ces présidents là xaw ma syndicat la ñu xaw ma la ñu tekkiwuñu dara naan yi def note de service vous pensez que cette CEDEAO là bu fekkoon ni am ngeen sens dëgg am ngeen valeur respecté na leen Alassane Dramane Ouattara bu waxee ni day def un troisième mandat yéen doo leen ko defal communiqué nga ne ko Alassane li ngay def baaxul Alassane li ngay def waxuloo ko woon Alassane li ngay def sa constitution digalu la ko Alassane bàyyi li ngay def Alassane tere nañ la ko Alassane boo ko defee dinañ la sanctionner pourquoi pourquoi CEDEAO deful mm-hmm. biir palais di wax ak ay journalistes ñu ne ko ndax di nga am un troisième mandat di nga ko def di nga présenté wala déet mu naan nii oui ni non pourquoi la CEDEAO jógul taxaw préciser Macky Sall ne ko waroo wax nii oui nii non ou alors au pire vous vous taisez monsieur le président de la République parce que tout simplement vous savez très bien que vous avez assumé vos deux mandats et que vous n'avez plus le droit d'en avoir un troisième boo taxawee ñu lay laajaat

d'Afrique qu'il faudrait changer je dis souvent qu'il faut que ngeen changer système bi je dis souvent qu'il faut que ngeen changer mentalité yi je dis souvent qu'il faut changer les états d'esprit parce que loolu bu amul dañuy sonal suñu bopp dañuy continuer di encore appauvrir l'Afrique di continuer di appauvrir suñu population yi di leen toroxal au détriment ou justement euh, day nekk toujours dans l'intérêt de la France mm. parce que de toute façon alal am na fi dund am na fu nit am ci àdduna fu nit nekk alal am na fa maintenant alal bi est-ce que nit ñooy ñoo ciy profité waaw wala déet parce que nit kese alal la acte nit rek acte économique rek euh, nit rek alal la donc fu nit mën a nekk ci àdduna foofu war na mën a dox bu doxul ça veut dire que dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy jël intérêt yi euh, di sacrifier seen réew euh, di nekk ay complices ak d'autres pays qui sont forts ou qui sont censés les protéger dans leur mandat ou foofu sax laa bëggoon ñu ko ñu taxaw fa sow aussi indépendante ba war a mën a jël euh, décision surtout quand quand il le faut parce que CEDEAO dañuy nemmeeku que ni moom mënul taper sur la table ci moment bi nga xamante ne dañ ko fa soxlaa tout le temps dafay xaar ba au dernier moment muy soog a réagir et ay réaction yoo xamante ne nii sax réaction yu yu yu jéggi dayoo lay nekk est-ce que ñoom euh, elles sont aussi indépendantes que que ça. ba mais aucunement la CEDEAO ne peut pas être indépendante ne peut pas être indépendante j'allais dire juste parce que. Mm. juste mais la CEDEAO ne réunion bi ñuy def suba nii. Mm. mais c'est Emmanuel Macron président de la République française dem dajaloo foofu pour jéem a waxtaanaat moom moo leen yónni woon aussi ñu dem Mali ñoom 4 ou 5 de ces présidents là dont notre président Macky Sall ñu dem toog pour wax ak ak ak ak ak ak ak ak Ibrahima Boubacar Keïta je je CEDEAO o du du kuréel CEDEAO tekkiwuñu dara CEDEAO amul njëriñ. vaut nekk que ces pays soient minusculement indépendants ku nekk am sa autonomie bopp liggéey sa liggéey ñu am suñu ay ay ay diggante euh, voisin voisin ñu ñuy def suñuy suñuy commerce comme on veut mais CEDEAO ça ne marche pas ce gouffre financier la alal boo xam ne la amul njëriñ ñi fay liggéey yëpp état ñooy cotiser dajale xaalis bi leen ko jox ñuy liggéey te tekkiwuñu foofu dara donc CEDEAO dañ ko war a anéantir CEDEAO ne peut pas exister ne peut pas continuer à exister parce que finalement cette structure ne sert absolument à rien dañ ko war a arrêter dinañ fa dem dañ def benn déclaration mais est-ce que vous aurez vous n'aurez pas pu faire une déclaration ci ci Alassane Ouattara li mu def. loolu doon Alassane Ouattara li mu def yéen CEDEAO lan ngeen changer constitution bi amaat un troisième mandat. ak vous êtes d'accord qu'est-ce que vous en pensez. qu'est-ce que vous n'avez pas dit vous sur Sékou ah, il ne s'est pas milliardisé lui. yal na ko yàlla yërëm. Sékou Touré moom moom sàccul ay milliards yóbbu ko bitim réew Sékou am na kër Europe est-ce que Sékou am na kër France est-ce que Sékou Touré am na kër France tam ngeen ko dëmb ba mu dee parce que tout simplement il n'était pas d'accord avec De Gaulle il a voulu garder son indépendance garder ses ressources minières parce que gars yi dañu bëggoon ñëw sax saxe ko yóbbu ko te mu préféré te mbir mi alal bi ci réew mi ba fu mu yam neex sax sax ngeen ko jiital Alpha Condé préparé ko en France pour mu remplacer pour mu finalement vous avez réussi demain il y a une période d'entre dans une période boo xam ne euh, am na ñeneen ñu nekkoon ci biir donc euh, Alpha euh, comment dire Lansana Conté mais finalement Alpha Condé bi mu ñëwee la am Alpha Condé qui a plus de quatre-vingts ans CEDEAO quest développé bu mm-hmm. ko fa gis est-ce que vous savez que celui qui est en train de diriger l'Afrique francophone kii dirige Afrique francophone tey 1977 la judd maa ko mag il s'appelle Emmanuel Macron ki leen di jox ordre yéen Macron la tudd Emmanuel 1977 la judd tubaab yi nee nañu moom la ñu wóolu ñi ko voté am nañu 70 ans en France ñi ko voté am nañu 65 ans moom il a des ministres qui ont 60 ans yéen ngeen ne yéen ay 80 ans yow Alassane Ouattara nga ne pour une stabilité quelconque nga ne yow da ngay amaat un troisième mandat jël Guillaume ko dem sànni ko France. avec quelle complicité vous pensez que ça c'est normal vous pensez que loolu dañ ko war a nangu en Afrique Ibrahima Boubacar Keïta je pense à vous je pense à votre fille à votre fille à votre fils uh-huh. dans ces péniches avec les cowgirls euh, mexicaines avec beaucoup d'argent de l'alcool et certainement de la drogue kan moo ñemee wax sa doom nga def ko député sa doom nga def ko ministre yow Ibrahima Boubacar Keïta homme d'affaires préparé par la France ngeen def loolu c'est normal nga ne yow vous aimez votre pays bëgguloo effusion de sang loolu moo tax nga démissionné mais qu'est-ce que vous êtes menteur mais li nga wax dara du ci dëgg yéen tekkiwu leen dara yéen yaa leen sànq Afrique il faut que ça soit un exemple pour le pour le Sénégal et pour les autres pays Alassane Dramane n'a pas le droit d'être candidat dans une élection présidentielle parce que def na ñaari mandat CEDEAO tekkiwu leen dara amu leen loo leen di wax seen réunion yooyu jaruñu c'est ça le Sénégal dafa am problème ah problème mu xaalis. Mhm. léegi nii Macky Sall bu demee nii aller retour 200 millions ça va vous coûter vous bu demee léegi lijjanti problème mu CEDEAO bi ànd pour waxtaan def seen i tappale yooyu 200 millions lay dépensé avec son avion là. Mhm. Pointe Sarène. parce que ñi muy àndal ak délégation fi muy dëkk avion beeg kérosène bi tout ça frais frais de partie aéroport rek dina def millions ku ñeme ku wax leneen na ñëw taxaw fii wax ma si le contraire. ñoom kañ dañoo newoon sax visioconférence la ñuy defee. waaw loolu la ñuy wax au départ mais ils vont se retrouver mais ils vont dépenser l'argent des Africains pour pour faire du cinéma de la comédie. Mm-hmm. suñu xaalis Macky Sall bu demee léegi nii dem pour réunion boobu. Mhm. dina fay 200 millions aller retour ak avion ak délégation hôtel beeg yooyu machin per job. sachant que bi mu fa gëjee yàggul. sachant bi mu fa gëjee yàggul bee passé aussi ça a la même chose c' quel argent c' est l' argent du contribuable sénégalais. Mhm. pendant ce temps là essence 600 francs lay jar le litre. 600 essence boo ko jëndee man su ma jëndee litre essence 600 ñii ñi ngi koy saax-saaxa di ci def lu leen neex je n'ai plus envie de ça d'accord ma ci te dinaa ko wax te sénégalais yi d'accord uñ ci africains yi d'accord uñ ci ñi ngeen doxalee vous faites honte à l'Afrique vous faites honte au monde vous ne pouvez pas être respecté par Donald Trump Donald Trump mënu leen respecté yéen yéen Donald Trump mënu leen respecté Donald Trump tubaab la mooy moo leen gën Donald Trump du jënd ay kër fii vous ne verrez jamais Emmanuel Macron ñëw di jënd ay kër fii ñoom Ibrahima Boubacar Keita mais ñoom bu waxuma sax Ibrahima Boubacar Keita mais ñi ko wër rek Sénégal c'est pareil ils ont tous des demeures des domiciles ay résidences la ñuy am ay Europe. Mhm. fan ngeen jëlee xaalis bi yéen Sénégal yi ngeen koy ñi nekk yéen fan ngeen jëlee seen alal bi ngeen jënd ay ay ay kër France. moi j'ai une maison que je paye depuis vingt cinq ans des na huit ans bu ma ko jeexalul dañ koy nangu da nga fay da ngay liggéey di ko fay ñoom dañuy jënd ay kër cash en France ñoom ñëpp dirigeants sénégalais yi nekk fii ca Abdou Diouf ba léegi. ñoom ñëpp laa wax donc ils ont volé l'argent du pays ñoo yam fii ki fi am ay milliards war nga am société bu ñu teg bët ak ñaata nit nga fay employé ak ñaata ngay fay impôt waaye fii da ngay jékki jëkki nekk milliardaire c'est pareil au Mali Mali sax saxee nañu alalu réew ma Ibrahima Boubacar Keïta ak ñi ko wër vous pensez que c'est normal loolu kenn di ko wax ku nekk boo nekk ci direction yaa ngi jéem a seet nooy amee alal yaa ngi jéem a sax nan ngay tegee ay deal avec certainement la complicité du président de la république wala des des chefs de l'opposition je sais plus moi ay chefs de gouvernement wala yu demee noonu ñi am ndombal tànk te taxaw ngeen yaakaar ni doomu Boubacar Ibrahima Boubacar Keita waaw yi muy def noonu yëpp yi mu daan def yëpp ngeen def ne loolu bu bàyyam nekkul woon président dina ko def. te ma tegal la ci leneen aussi Aliou Sow démb ba tey sax bi yëf yi amee ñu bëri ñu ngi naan boo moytu moom Ibrahima Boubacar Keita bu yëf yi dalee fii lay ñëw Sénégal fii lay euh, noppaloo daal ñoo ko nar a. comme d'habitude mais bi Ousmane Tanor parce que certainement il doit avoir des très pour jaale ko et cetera donc ils ont des très très bons rapports certainement bu caaf xamante ji nii mën nañ ko euh, euh, euh, supporter comme ils ont eu à le faire avec Hissène Habré naturellement donc je crois que il faut changer le système politique les systèmes politiques africains il faut que mais Alassane mais yéen nga Alassane Ouattara moom daal moom moom moom moom moom moom moom moom rek a mën moom daal su fi nekkul daal Côte d'Ivoire du dox daal Côte instable keneen mënul koo jiite quoi c'est comme Macky bu fi nekkul aussi keneen moo fi war a mën a nekk ça devait être clair net et précis que Macky doit pas avoir plus de deux mandats loolu dafa war a leer ci bopp seen loolu moo tax mérénage journaliste yi xam nga tax parce que euh, loolu du question bu ñu waroon poser Macky mm-hmm. loolu du question bu ñu war a génnee sax di ko laajte pour lu tax loolu parce que naturellement loolu deux mandats la deux mandats la d' abord parce que moom moo ne deux mandats dafa changer constitution bi pour expérience yi ñu amoon ak Abdoulaye Wade c' est terrible quand même ah pourtant voyez bien moi j'aime beaucoup Abdoulaye Wade pourtant moom tamit il a voulu faire la même chose waaye ñun lii lan moo ñu dal ñun. ñun dañu am problème parce que man seen bi yàlla la mais xoolal pourquoi à un moment donné parce que est-ce que dañuy def ba toog da yaakaar ne ñoom ñooy yàlla ñooy yonantu ñooy Serigne Touba ñooy El Hadj Malick que ñoom kese ñoo war a nekk keneen warul mën a nekk parce que ñoom kese la ñoom la yàlla ñoom la dama lay wax benn affaire boo xam ne moo nekk ci àdduna bi nit ku ñuul moo bëgg a nguur nguur daf ko wala non non c'est gis nga dégg nguur ñoom non dañ ko bëgg seen biir xol mm. buñ ci nekkee wàcc bi ah wàcc bi mm-hmm. non non mën nañu yéeg Mhm. waaye wàcc lañu ñu mhm. loolu yëpp gis nga IBK bii muy IBK muy euh, Condé gis nga ñooñu euh, kii boobu ñetti ñooñu ak ak euh, président Niger bi mhm. dégg nga ñoom gis nga ak ak ak bu Tchad bi gis nga ñoom ñëpp dégg nga booy xoolaat rek xoola dëkk yooyu mais xoola gana yow Ghana da nga fay dégg yooyu depuis Jerry Jerry Rawlings bi mu jëlee bi mu jëlee bi mu defee coup d'état bi mu ñëw ba si ak delloo kii dem élection benn yoon après bàyyi jox gars yi da ngeen ko fa dégg Cap Vert ngi ni Cap Vert Cap Vert bi ngay gis nii am yooyu dootoo ko fa déggati mais c'est que nag ñi koy def nii yëpp te xool leen ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp moom mooy rek France. Mhm. comme ni ko Aliou sax mhm. France la moom mooy nekk ci loolu. Mhm. IBK ci jëmmu boppam ci jëmmu boppam gis nga man bu dee la contestation du peuple am na foofu gis nga lii. moom moo ko andi boppam. parce que moom am na benn moment boo xam ne xamoon na ne que la population était déterminée. effectivement munoon na ne rek. dégg nga génn par la grande porte. Mhm. léegi mu ngi nii génn par la petite porte. Mhm. les autres présidents africains dañu bàyyi xel bu baax ci li nga xam ne. non non amuñu jom de amuñu de.